Oh.

Thierno ça va na comme ça xanaa di xaar rek ba xam. loolu tax sax ma indi Mohamed mi comme ça nga am certitude ni mook Aïcha nekkuñu woon. moom démb ba léegi fa mu toog la toog waaw démb ba léegi dafa jaaxle moom tamit. même problème la motax mané ko nañ dem bu la sa papa gisee bon xélam mëna dal dal voilà mi ngi nii vraiment dem ba légui deful dara négam la tuju voilà comme andul won ak mom yalla baxna na mhm. xel mi moom du mëna dal nak mhm. du mëna dal ay sa fi ak feeñul rek sama xel du dal mais nak lepp dañ ko denk yalla rek Jij woont spullen? Père. Ja. Toen laat ik al staan

fa ñu nekkoon ba tey ña nga fa xëy na dañuy bàyyi mu wér rek ba tane bu baax a baax a baax a baax baax te yaakaar naa loolu tamit mooy sa kàddu aussi man dang ma jaaxal xawma lii lan la xawma lo gis ak lo top ba sama bir kër gi du da nga jël sa bop def ko tubaab bëgg ni tubaab bi du dundé nga dundé ko fii suñu réew bi amul lolu fi dëkk dox daje la yaa ngi ni xolal ni nga mel nee la clinique n'importe quelle personne mën na xëy seet la takko nano sango xolal li la ci arrivé li yep waxon na la ko yaangi ni xawma li lan la ñaata fan mënuma lek ba suur mënuma nan xawma ci lan lay nelaw xawma ci lumay dox da nga foog ne dina la nga tak di nga nan di nga sangu bo joge ci di nga xam lan moy aduna dem waye maa ngi S'il te C'est très belle. Mohamed. Viol sais. Je je sais. suis position à parce que je suis ni moom depuis des années mon suis là que xam mm-hmm. mais tamit viol quoi. mais nag moo ma bii mais Aïcha amul kenn ku dul yow hmm? bu weesoo ay parents mais ya fi nek donc nag sois fort ok. alors anu mi ngi këram. waaw mi ngi këram. mais dem ci moom. comme tu veux. ok. papa dafa la mere quoi ma ñëw di laaj 300000 nga may nga may jànni. Pas. Pas là, là. Pas là, là. Koto. Papa, là, là. Là, mon chef, là, là. Betadine. Papa. Opération. Pas là, là. Là, mon chef. Ciseaux mais la moo jot sama papa maman ma ma ma papa où sont tes plaies papa là, la ba li ngay papa là, la la moo la jot li la metti tu es belle non là là, Si, si, si, si. Si. Si. si très belle. Pardon Comment lequel Vous te plaît. Papa, là, là. Non, mais pas là, là. Là, moi, le job, pas là, là. Non. Là, moi, le job, là, là. Duso teble. Tu es très Papa Lala. Oh. Papa Lala. Pa. Pa Lala. Pa Lala. Petadine. Tu me trouves belle Écoutez, je termine le texte et je te l'envoie. Voilà, parce que nos partenaires là, ils sont très exigeants, comme vous le savez. D'accord, voilà, je le termine, je te l'envoie, d'accord. D'accord, d'accord, tout à l'heure. téy leen seen loxo laa wax bu bu ne ma Aïcha eh, ma ne déglu leen ma laa wax yéen ak li ngeen def yëpp jaxase ma seen papa indi problème ci famille bi ngeen am fitu ñeneen yéen a dugg ci encore ci kër gi hein nous sommes vraiment désolés mais Aïcha ak ñun suñu ànd wi ànd yu dëggu la sa problème mi nga am ak sama papa seen problème mais ñun doom yi suñu yoon nekku ci mais li ñu fi indi mooy xool Aïcha nu mu def loolu moo ñu fi indi ñëw ñu fi pour leneen nous sommes vraiment désolés nag. yéen est-ce que ñëw leen ci kër gi pour kookal li ma sax seen papa yónni wu leen sax.

kaya maya gose goce wa am ak wa amul ak wa xar gen wa xarul gen cop ci len yo lamp yo lamp gen wuy togal togal laa ilaaha illaa hu xayyul qayyuum laa taxuddu sinatun wa laa nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fil ard man zallazii yashfau indahu illaa biiznihi ya'lamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wa laa yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa'a wasi'a kursiyuhu samaawaati wa maa fil ard wa laa yahuuduhu hifzuhumaa wa huwa al-'aliyyul 'aziim ما يرام الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين bàyyi ko bàyyi ko kii am na jàmm. Ah. am na jàmm léegi bu bax sax am na soxna si ki limu dajel mbir la de. Hmm? ah waaw. leg nak sarax yi moom dinaa la ko digtal. nga def ko. jërëjëf jërëjëf. ko defee yalla dina la defal jàmm bu bax amiin sama papa dina wer inshallah allah wér na kii kay ki kay mom kay mom santal yalla bu bax hmm. santal yalla bu bax ki limu dajel dafa bax waaw ah, lay dee xam nga am na ñu baax am nañu bon hmm. waaw maa la wax loolu am nañu baax am nañu bon yàlla na yàlla yàlla na yàlla fëgg boppam barke Seydina Muhammad yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def

tu sais yëg naa li jot a xew yëpp quoi j'avoue que ni du lu ma neex xam nga nit nga nit laa donc xam naa ni que ni ndogalu yàlla la quoi kenn mënu ci dara tu comprends àdduna moom ñaar la defkatu lu baax ak defkatu lu bon mais lépp lu yàlla teg ci sa yoon ci sa destin nga koy sant yàlla comprendre nga tey amaana mun na demee neneen. mun na la demee neneen xam nga sa bakkan nga ñàkk sa bakkan ñaanuma ko yàlla xam nga gis nañ fi ay xale yoo xamante ni juddoo ñu sax ñu def leen ko mais sant nañ yàlla bi mu nga xamante ni vraiment yaa ngi am sa santé ko xam nga du du du loo xam ni nag da nga ciy da ciy ñaaw yow ci comprends parce que yow defoo dañ laa def man personnellement neexuma mais xamal que ni tu auras toujours mon soutien parce que bu dara dara bëgg naa la pare quoi xam nga te du yi mooy tax ma lay bàyyi boo bëggee dégg-dégg bëgg naa la pare je t'ai donné mon cœur xam nga yag nañu man ak yow xam na ban genre jigéen nga xam nga donc du yi moo tax ma lay pour dire vrai ndogalu yalla nañ jàpp ni ndogalu yalla malay remercier si kàddu yi lima, lima li ma dafa bëri dama am gàcce dama rus ci sa kanam parce que la dernière fois ba ñuy mujjee gisante peut-être nu ma demee woon loolu maa la ci jégalu bu baax a baax te Mouhamed bu ma xamoon ne que ne affaire yi nii lay deme kon doon mën a doon bañal dara te du ma la doon mus a repousser ma lay ñaan nga jégal mu bu baax a baax a baax ci m'attendais pas à ça xalaatuma woon tu n'as pas amoo gàcce du gàcce amoo amoo bu ruus wax naa la ko yàlla moo ko bind ci sa yoon dañ koy sant yàlla quoi suñu borom lépp lu mu def dafa gën mënoon na demee neneen mënoon na gën a ñaaw mais tey faju nga ba yaa ngi am yaa ngi am tan donc sant yàlla xam nga bu ko jàppee kàcce bu ko jàppee tawa demain boo jugee tu vas te lever avec la tête haute parce que demoo ci ñoom ils sont venus vers xam nga ay def katul lu ñaaw lañu ñëpp xam nañ ko li jar li jar ñaan kay mooy ñu jàpp leen dang ma ji la nga xam bu yalla tuddé sama diggante ak yow dina la sëyal ba sénégal yépp xamné ne sëyal parce que tay dang ma ji teraanga li ma ji nak moy lan parce que bi affaire bi amé depuis dem ba tay dama yaakaaroon ne bu dugg ci ci kër gi ma da nga na ma Aïcha bama xol nga ne sama diggante yow jeex na té dama la yàgg di repousser mais ma lay jéggulu bu baax ak li xew yépp man nit bu gëm yalla la lépp lu suñu borom dogal la makoy nangu comprendre mais nak san na yalla bi nga xamante mbeugel mo lal sama ak yow sama réaction tay du lenn begil, dul mbeugel bëgg na lo pare et que du ñaaw sama ak yow ambition yi ma amone suñu digante ba léegi mom la am sama jabar labun bëgg nga doon sama yaay doom labun bëgg nga doon lolou musul changer. boo na sa xel sa jabar maa ngi Mohamed yow rek la bëgg sama àddina. tu m'as beaucoup manqué. tu m'as manqué aussi. tu as un beau sourire Pourquoi perte. merci. tu sais je t'aime bien. moi aussi. allez fais-moi un câlin. Bon. Il fait un peu tard, demain, demain Inch'Allah. D'accord. Je viendrai demain matin. Beaucoup un petit déjeuner. Ah, mm -hmm. ça te dirait Ouais. Qu'on dit que sentir ça demain avec Non, non. Non. D'accord. Allez. Porte-toi bien Merci. et passe une bonne nuit. À toi aussi. Ciao. Bye. そうそう。そうです。Voor mij te dus wens. Wow, d'accord. Allez, donc. Voilà. Aisha? Oui, papa. Aya yang tidur. Utama yang sudah lawo. Aduh, mungkin kan? xam nga yow damay wéetal ma la gisul rek damay wéet nag. Hmm? ça va. ça va naka yaram bi. Amel xanaa léegi sa xel dal na. Hmm, sama xel dal na kay papa. voilà laa bëgg nag léegi da dal gën a dal sa xel bu baax a baax a baax. comme ça hmm. nga récupérer jëlaat sa état normal. dégg nga. d'accord.

sama jour anniversaire mo mo xamne duñu am problème bu ndaw lendemain anniversaire bi mo may woo nanguma ko décrocher te yow xam nga sax li waral sax nanguma ko décroché mais loolu nga gisul li nga yaakaar dama diggante mom dara mosu si xew su papa moo xam ne mosuma tek lox wa kon kon affaire bi man leral sama bop mu leral parce que man fi mu je ne comprends pas affaire bi nan la demee. nu mu demee nag moom moom la ñu am bu ndaw parce que fi mu invité moom mu neexul woon jot ci léegi le lendemain bi ma xëyee daf ma doon woo téléphone nangu ma ko décroché ci la base woo ne ma Mouhamed dafa def accident bu ndaw xam nga waxoon nga ma sax bu ma génn kër gi après nga ne naa la jox sa caabi oto après si laa génn bi ma solo génn bi ma woowee ma xaw a jaxasoo te xam nga fi ma toll si Mouhamed si laa daw génn arrêté taxi. bi ma jëlee taxi nag ci kanam ab xasil ma dogal affaire bi nan la demee ne ndaw na ci lan la dogale comme ça man ñooñu xaw ma leen pap dañ ma dogale après kidnappé ma yóbbu ma te nee son ñu pipiiru te bu ñu pipiiru moom rappelé ki ma bëgg

ñu xam vraiment c'est des professionnels amul loy def lo xamné duñu bëri ci leen am mënta nekk sa yaay nag woo naa ko woo naa vraiment jaxlé woon na trop trop trop trop trop mais xamna naa dinañ ko waat jéem a dalal xelam bu baax. Mm, d'accord dalal xelam parce que sànq yaay ma wax dëgg yàlla bëgguñu muy jaxasoo muy jógee ci moom. te booba hmm. tamit maa ngi leen di jégalu ci li xew ya, de. non maa ah, ngi lay jégalu bu baax a baax. déedéet déedéet loolu moom xam nga ku nekk rek am nga destin te nit ki mënut échapper à son destin lu war a am la kenn mënu ci dara faaw mu dal nit ki yow nag aussi nga jéem a dal gën a dalal sa xel te xam ne aussi loo metti li metti rek gis nga ñoo xam ne ñoo la gën a mettile boo gëstoo rek gis ñu la gën a mettile parce que lii am na ñoo xam ne jaar nañ ci waaye nettali wuñu ko jàmm bi lépp lu muy nettali rek war na ko sant yàlla. Mhm. parce que am na ñu mu dal ñoo xam ne kenn waxatu ko. Mhm. jëlewuñ ca bakkan. kon nag euh, ngay encouragé bu baax dina dalal sa xel xam ne euh, lu waroon a am la rek. Mhm. tu ngay encouragé bu baax. dégg nga man yaay sama xarit dégg nga. voilà voilà.

la moom du xaddi comme sama waaye soo pil sa dëkkali kekk kekk waa